moom moo ne woon yéen dégg ngeen ko waa presse premier ministre mu wax ko ñu ne fonds politique yi yi ñuy woowee ay fonds spéciaux waxuñu sax dañ koy changer mais dañu ne dafa xaraam da koy supprimer loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu waxoon bu ñu ñëwee pouvoir waaye nag gis nañ ne comme ci leneen lépp parce que ñoom lu ñu wax wet dégg ngeen appel à candidature pos ñu ne certain man gisatuma sax bu ci parce que pos yi jeex na <laughs> benn moo ci des mooy bi may sa mayekoor yor xaw ma ak keneen li des yëpp joxe nañu ko donc appel à candidature ma bu ñu koy joxee jaaxal na ma ñu ne nag euh, moom nee na fonds yi nee na waxatul xaraam na de nee na waxatul du ko dindi de nee na waxatul bon na de mais nee na da koy ngénte waat tuddee ko faux secret di leen wax ne encore nee na waxul da koy wàññi de waxul du ko laal de daf ne da koy ngénte waat tuddee ko faux secret dama bëgg ngeen dégg baax moom li mu waxoon xaraam na nee na da koy ngénte waat tuddee ko faux secret parce que tuddul sax fond politique dinaa leen wax léegi li mu tudd toujours ci loolu li ñuy wax wàllu faux secret yi le président Bassirou Diomaye Faye dafa ne bi mu ñëwee fekkul dara ci kees bi nee na fond politique yi lépp jeex na ma xam nga loolu li muy wane mooy d'abord moom ñàkk a xam-xam wax dëgg yàlla parce que man dama am sax gàcce parce que man nee na moom inspecteur des impôts te inspecteur des impôts xam na lu ñuy mais man dama jaaxle mu ne bi mu ñëwee non seulement fekk fa dara loolu li muy wane rek mooy xamul exactement nan non seulement nan la lan mooy budget mais aussi manque de coordination ci ay services mais bu leen fàtte ne aussi ñëw ils sont pas de bonne foi donc loolu bu leen ko fàtte. Euh, toujours bi wax toujours ci fonds politique yi présidence de la république loolu dafa doon loo xam ne ay fonds la yu ñu voté à l'assemblée nationale dans des rubriques yoo xam ne dama leen koy waxal ci loi de finance bii 2024 bii nii un fonds de solidarité africaine à hauteur de deux milliards cinquante 156 millions 296 mille francs CFA beneen rubrique bu ñu tuddee fonds spéciaux de la présidence de la république boo xam ne 3 milliards 500 millions de francs mu am troisième rubrique boo xam ne toujours ci LFI bi c'est public mën ngeen ko gis ñu tuddee ko fonds d'intervention sociale de la présidence de la république mu nekk 2 milliards. trois cent total boobu yëpp moom mooy sept milliards neuf cent cinquante six millions deux cent quatre vingt seize mille francs CFA moom la ñuy woowee ne fameux huit milliards yi ngeen di dégg fonds yooyu nag dañu ko voté à l'Assemblée nationale et depuis plusieurs décennies nii leen ma leen ko waxe nii ci président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade président Macky Sall ba tey jii ci Bassirou Diomaye Faye amul benn dërëm je bien dërëm bu ci yokk wala mu wàññeeku ci nii mu mel nii noonu la musa tool euh, président Senghor nag ba léegi muy jaar ko ci président Abdou Diouf ci président Abdoulaye Wade ba ci président Macky amul kenn koo xam ne am na manque pudeur ak inélégance di jël loolu nga xam ne ni c'est question stratégique boo xamante nii c'est laissé à la discrétion d'un chef d'État mu koy wax ci mbedd moom kese moo am cette inélégance là maintenant damay rappeler ne ces fonds dañu ko mobiliser conformément aux règles de li ñuy mobiliser ak di ko exécuter budget ba pare nag dafa am benn rapport trimestriel boo xamante ne ni at mu jot wala trimestre bu jot dañ koy yónnee assemblée nationale daal di koy publier ci site bi nga xamante nii mooy surtout ministère des finances et du budget te yéen ñi bu ngeen demee tey ci site bi di ngeen fa fekk le rapport d'exécution trimestrielle du budget du budget 2024 bi d'ailleurs yéen yéen a dégg ci seen nopp comme moom day wax di fàtte parce que xam nga booy wax loo xam xamante ni lu dëgg da ngay fàtte moom nee na am na ñoo xam ne dañoo feebar ba tey fi mu toog sax noonu am na kuñ ko woo ne ko opération bi réussir na waaye léegi moom fu mu jëlee alal yooyu te moom dégg ngeen bi muy def déclaration de patrimoine mu ne dafa déficitaire yéen gis ngeen ko mu ne compte bi mooy nangam léegi kooku fan la jëlee xaalis boobu donc moom nee na no fekk fa dara waaye ma ngay utiliser alal loolu nan lañ ko xel mën na nangoo donc te rapport exécution bi budget bi jamono ji mu ngi toll ci vingt quatre virgule trois pour cent moom nee na fekk fa dara parce que moom dafa jàpp ne li ngeen xamul moom dafa jàppoon ne bu ñu ñëwee pale rek dafa fekk ay placard yoo xamante ni nii day fees dell ak xaalis muy fond politique moom loolu la jàppoon comme bi mu ñëwee gisul placard yooyu moo tax mu ne fekk fa dara mais après il s'est ravisé donc pour tout dire la mauvaise foi de nos